nee na mi ngi ñaan yàlla bis bi it ñu yàgg koo teewe te yiw ci yàlla doole ak yiw yi sotti ak xéewal yëpp mu jox ñu ko te jox ko mboolem jullit yi ci barkeb sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla it ñoo ngi ñaan yàlla mu fegal ñu mbooleem lori at mii ak mbooleem lori at yi ñëw ci barkeb sëriñ bi nee na nañu xam ne bis bii daa doon bis bu rëy doon bis bu tëdd boo xam ne xew-xew yu bari suñu boroom xewal na ko ci yonent yu bari ak xaritam yu bari bari na lu mu leen defal te ci bis bii la leen ko defal yonent yàlla noox doon na woote ba woote ba woote lu jege junni at am na ñu wax ne junni at yu manqué juróom fukk am ñu wax ne junni at ak juróom fukk waaye lu ci mën di am rek day wane ne woote na lu yàgg aw nitam di ko weddi ba mu ñaanee yàlla ginnaaw ba ko suñu borom xamalee ne ñii fi nekk kenn du la gëm lu may ñii nga xam ne gën nañu la ba noppi mu ñaan yàlla mu tukkal àdduna suñu borom tukkal àdduna ci am ndox gaal ga mu yettoon dugg ca dañuy wax ne ci bis bii la suñu borom taxawal gaal googee mu mucc moo moo mboolem ña ca gaal ga yonente yàlla Ibrahima ñëwoon ci jamono ju doy waar di woote moom ñu koy weddi ba ko sawara sànni ko ca sawara woowee wax nañu ne ci bis bii la ko ci suñu borom musal yonente yàlla Muusa moom it di woote na ak ñam àndal ñu koy weddi di ko teg ay coono wax nañu ne ci bis bii la ko suñu borom musal ci Firawna labal Firawna ak ñamu àndal yonente yàlla Yuusufa ba ko doomi baayam ya dugalee ca bënn ga mooy lu mel ni ab teen ba ñu ko ci dugalee dem bàyyi ko fa wax nañu ne ci bis bi la ko fa suñu borom génnee kon bari na ay xaritam moom suñu borom yu mu defal teraanga ak xéewal ak musal ci bis bi loolu tax nitu yàlla yëpp fonkoon ko sëriñ bi fonkoon ko lool rasulullahi muy royukaay yu ñëpp moom it fonkoon ko lool ndax daana ko woor at mu jot bi mu ñëwee madinatul munawara daa fekkoon yahud ya di ko mu ne leen lu tax ngeen di ko woor mu ne ko suñ ci la suñu borom muusale woon Muusa mu ne leen ñoo leen gën a yey ci Muusa di ko woor at mu jot ba ni mu làqoo mosu koo jëlal mu kon muy bis bu bari ay teraanga suñu borom di ca wàcce ay xéewal yoo xam ne ku ko màng mën na laa jural texe ak muccub tey ak gu ëllëg amul nag yuñ ci santaane ñu war caa góorgóorlu bokk na ca sangu ndax sëriñ bi wax na ne képp ku ci sangu ni ñuy sangoo farata rek lañ koy defee wala ni ñuy sangoo àjjuma mu ne képp ku ci sangu suñu borom dana la fegal mboolem tawet yiy xew ci at mi bokk na ci yiñ ciy digle mooy tusungalu sëriñ bi wax na ne képp ku ci tusungalu ku ciy tusungalu suñu borom dana la musal ci li ñuy tudde gumba bokk na ci yiñ ci digle raay boppub jirim te jox ko dara bokk na ci yiñ ciy digle ci bis bii yaatal sa njaboot ci wàllug lekk ak wàllug naan sëriñ bi it wax na ne képp ku ci yaatal sa njaboot ci lekk ak naan ak bégal leen suñu borom dana yokk sa wërsëg kon muy ay mbir yoo xam ne dis ko war a def te fonk ko ndax ko demoon fee dellu si lu ñu la wax ne mën naa maye aw yiw doo ko xeeb mukk bokk na fi yéen fi digle lelli ay we bokk na ci yiñ ciy digle ci bis bi siyaare ji borom xam-xam yooyu yëpp bokk na ci yiñ ciy digle it jokk ak mbokk kon suñu delloo fexe ba ku ci amut ay xat-xat lu mu ci mën a def ci yooyu rek mu gaaw def ko yooyu daa aju woon ci bis bi nee na kon na nit ñuy dénk lu weesu bis bi ak la jiitu bis bi ñu gën a laxasaayuwaat gën a góorgóorluwaat gën a farluwaat ci ndigali yàlla yi te ñu xam ne lépp lu ñu fi def lu may jaamu yàlla ak tege ci ak njub defuñu la ñu war te ab jaam bu dëkkee def la ko warut waxtu wu taseeg boromam daje ba du doon luy neex ci moom suñu bëggee waxtu wuñ fi jógee fekk la ñu gënal buñ dekkee de fekk fa it la ñu gënal dañuy xool la yàlla gërëm te jaare la ko ci rasulillahi salallahu alayhi wa sallama te bi sëriñ bi ñëwee doon yeesal loola ñu nekk ca loola te bañ caa jóg te waxtu wuñ ca nekkee nañu yemale ñëpp fekk ñu ca ak ñëpp won ñu ca ginnaaw suñ ko defee rek doon nañu mucc

ak loo nekkewul àdduna ñu soppi ko mu dib añ ñu tegal la ko ci sa kanam boo ca gisee lu la neex yow la boo ca gisee lu la naqari yow la kon nag bu ñu jeexal suñu dund mukk ci ay caaxaan akum fo ku ko def bala nga fee jóge di nga ko réccu boo fi jógee di nga ko réccu boo dekkee di nga ko réccu buñ la àttee di nga ko réccu jëpp jëf joo xam ne nag mujj ga lépp rëccu la ku amum xel warta yëkkatib tànkam jëme ca li nga xam ne nag yàlla gërëm na ko jaarale ko ci rasulillahi muy sunna sëriñ bi doon ko yeesal gaa yu baax ya ko jiitu woon doon ko yeesal ku ci nekk mën ngaa weet mën ngaa ami coona waaye sag mujj lépp xéewal lay doon ak teraanga ak mucc akum nooflaay kon suñu delloo nañu fonkaat julli juróom yi nañu fonkaat weeru koor yi nañu fonkaat joxe asaka yi aj màkka ku ko ci mën na ko def te kenn ku nekk ci ñun kum tane te muy mbokkum jullitam lam ko tanee mu dimbale ko ca te ñu wattandiku yu baree bari yàq sa mbokkum jullit doyadal ko xeeb ko tuutil ko woyofal ko yooyu yëpp day waral mujj gu ñaaw ak ñàkk a mucc suñu delloo nañ ko wattandiku suñu kemtulaay kàttan nañuy suturaalante ndax yàlla suturaal ñu nañuy sagalante ndax yàlla sagal ñu nañuy warmaalante ndax yàlla warmaal ñu wax waaye nag waxtu woo toogee nag koo mën a xawi suturaam xawi ko koo mën a dindib sagam dindi ko koo mën a dindi wormaam dindi ko bisa ngi jot yàlla faw mu dindi sa sutura faw faw mu dindi sa worma faw mu weer la ba ñëpp gis la kon loo bëggut yàlla def la ko rek bëggoo sa moroom jaam def la ko fexeel ba bu ko def kenn loo bëgg nag ku la ko def ak noo bëgg yàlla def la ko fexeel bay def noonee jaamam yi bëggoo ku la jëw bul jëw kenn bëggoo ku la xas bul xas kenn bëggoo ku la tuutil bul tuutil kenn boo ko dee def rek bu yàggee yooyu yëpp da nga ciy mucc waaye koo mën a jëw jëw ko koo mën a wax lu dëgg wax ko ko koo mën a wor wor ko bu yàggee it ñëpp di la ko def rek te duñ sañ a bañ kon nañu gëree góorgóorlu takkaayoo makaama makaarimul axlaaq te xool la yàlla gërëm di ca xëy di ca gont xool la yàlla bañ ñu di ko daw yàlla na nu yàlla dimbali yàlla dolli ñoo defal ay tawféex sëriñ bi teel ñu suñu taalibe bisimilah nangu leen ñaan.